ci daara ji wala ñu bëgg ay leeral ndax tàmbale na incha allah tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ñu am solo muy sëriñ Mor Khady ak Serigne Malick Bassine si ci li ñu tàmbali woon démb muy roy ak romb te mu tege ci xam-xamu shariha ak xam-xamu xaqiqa ne ma koy faral di waxee rek mag ñi de seeni wax ak seeni jëf lu mat di xeeñtu la. ndax ñoom day dëgmaloon nañ yàlla ànd ak sëriñ Touba ba am ngërëmul yàlla kon yaakaar naa ku jaar ci seen mboor suñu borom mën na laa dimbale te it ñoo xam ne nii day euh, ndax sëriñ Mor ak sëriñ Malick sëriñ Touba noon na leen wax na ko soxna Faat Ja wax ko ñeneen ne leen yéen day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na ngeen bokk ci ñooñam waaye man la leen sama borom jagleel kon nag yaakaar naa ñoo xam ne ne yonent bi bëggoon na ñu bokk ci ñooñam sun borom jagleel ko sëñ Tuubaa ñuy ay taalibeem ñooña mat nañu roy te bu ma leen waxee waxaale naa mboolem euh, seex yi àndoon ak sëriñ Tuubaa ndax ñoom ñëpp ay géej la woon dañoo euh, du yoon ba fees dell la euh, seen xikma yi nag mooy roy ak romb dañ ko doon wax démb mu tege ci xam-xamu shariha ak xaqiqa nit lépp loo gis mu koy def tem leer la tege ci xam-xamu shariha royal lépp loo gis mu jaaxal la te xamoo lu mu doon rombal ndax benn mu amuk may di ko def wala muy mooy di ko def te lu mu ci doon rek moom la yitteel ndax suñu borom tabaaraka wa taala day wax ne dénk naa leen seen bopp yéen jullit ñi dal daal di wax ne jubadi jubadi ku jubadikat loram du leen wàññi dara bu ngeen jubee yéen aleykum anfusakum laa yadurrukum man dalla isa htadaytum di la waxaat ne bàkkaarub jàmbur kenn du ko bindal kenn wala taziru waziratun wisra uxra kon nit lu mu def gannaaw moom bu dee lu muy amee bàkkaar it moom lañ koy bindal kon yow loola warulaa yitteel lala la war a yitteel mooy lu baax la ngay def di ci am aw yiw ak lu bon la ngay wattandiku eh, di ca di ca di ci ñàkk am bàkkaar kon loole nañ ko sàmm bu baax a baax te xam-xamu sharia ak xaqiqa dañoo bokkut yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bi mu rañaanee suñu borom tabaraka wa taala jox na ko fa ñetti xeeti xam-xam benn bi jaadu na mu xamal ko euh, nit ñëpp te xamal leen lépp bu bu ci denc dara te boom ko dencal kenn loolu mooy xam-xamu shariha te loolu dafa bokk ci xaqi yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom la sëñ Tuubaa di wax naan wa annahum yajibu fi xaqihimu euh, sidqun amaanatun wa tabliquhumu wa kasibun xiyaanatun kidmaanu harramaha alayhimu dayaanu mu ne ñaareelu xam-xam bi bu gisee ku ko soob mën na ko ci xam la ko soob loolu mooy xam-xamu xaqiqa ci la jullit ñi rawante asaabiquuna bil xayraat ci la ñu rawante ñetteelu xam-xam nag araam na mu xamal ko keneen diggam ak boroomam rek la dox kon xam-xamu shariha ak bu xaqiqa bokkuñu loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sulhal Hudaybiya bi muy bindanteeg yéefar yi ay accord tey jël li gën a suufe mu niru ne di leen jox li gën a kawe Seydina Omar ibnul Xataab da caa tàng ba dem ci Seydina Abubakar ne ko waaw du ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko kay mu ne ko du yéefar yee ne ci fen mu ne ko ah mu ne ko waaw lu tax ñu jël li gën a suufe jox li gën a kawe Seydina Abubakar ne ko giñ naa ne kii yonentu yàlla la mu ne ko man kay seede naa ne yàlla la daal koy romb dem ci yonent bi ne ko waaw du ñun ñoo ne ci dëgg mu ne mu ne ko du yéefar yee ci lurut dëgg mu ne ko ah mu ne ko waaw tax ñuy jël lu suufi la di leen jox li li kawe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Omar ndax gannaaw bu yàlla ak yonentam àttee ba noppi day am dangay am loo cay xebet Seydina Omar nee na bi mu ko waxee mu mel ni sama nopp yi dafa sedd guy ba léegi bu ma ko fàttalikoo duma dañ di jéggul suñu borom kon yonent bi booba xam na lu Omar xamut ak lu jullit ñi xamut loolu moo tax juyoog sa kilifa euh, baaxut te wóorut tamit moo tax alxuraan day wax na